waaye bu ñu demee ba leen dugal ngeen naan yéen ngeen ay organiser pour xeex ak résistants yi xam leen ni yéen a ngi si xottu gerte. résistance la woote te su ma amoon terme bu gën a fort gatsa gatsa sax dinaa ko utiliser bii baax bu leen kenn gëm loolu way ñii ñooy nitu fitna ñi président de la république bu dajale ay nit pale ne leen dem leen préparer pour ay milice xeex ak xale yi waxoo police ne l'ordre